wa amma bi nimati rabbika say xéewalu borom dee ko ci sant dàll yi nga sol kadalika naka noonu wér-gi-yaram gi nga am nga war cee sant yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wax bu daw yaram sabab yépp nañu koy jàngat fu ñu toll waaw sabab yi nañu koy jàngat fu ñu toll mooy gis nga nit juróomi xéewal a ngi nii teeroo ko juróomi mbir gis nga ndaw ci màgget la jëm kon shababak qabla haramik yow jeune bi yow xale bu góor bi ndaw nga te mag ngay ñaana doon ndaw li nga doon delloo ko sa borom fexel ba bu yàlla soxlaa demal su yàlla bëggee defal ndax yàlla moo la moom moom say soxla كون شبابك قبل هرمك نو دنوكي سام صحتك ويرجي يرم دنوكي توبوتو نان لا ني توبوتو ويرجي يرم جامو بيغي وير جامول يالا ديفال لي نيه يالا توبال بروم بي ندخ وير خيول لا خمغا نان نيوكو خم ني فيبر موتاخ عربي ديون واخني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء laa yaalamuha illa al marda waaw gis nga mbaxanam wér ñi koy sol duñu ko xam xam nga ñoom ñoo koy xam ña tëdd hôpital ña tëdd hôpital ñoo xam valeur wér ndax ñoom wér da leen a tëdd lekk mu rees munuñ ko naan munuñ ko tëdd la ñuy def dañ leen di wëlbati ko kon si xatak qabla suqumik sa wér gii defal ci yàlla li mu bëgg balaa tawata ñëw te yàlla loo ko defal ci jamono ba ngay mën boo mënatul mu di la ko fay nam la ko daan fayee kon jamono bi ngay wér di jaamu yàlla boo wéradee mënatoo ndax wéradi nga mënatoo taxaw julli na ko bëggee woon amaan na da ngay toog wala booy taxaw doo bëgg mu yàgg mais yàlla dalay delloo cosaani na nga ko daan defee kon loolu ndaw da koo war a sàmm gis nga personnalité nit ki mi ngi koy amee ci xam mooy kan gis nga soo ànd yàlla jaru ngay tiit jaru ngay jax ànd ak yàlla nag yaa koy cherché ngir ànd ak yàlla su yàlla ànd ak yow àdduna ba mu daj bokk nga ci ñi koy tabax lan moo tax mooy yàlla ànd naag yow nga wëlbatiku jëmmal ànd googe jëmmal ànd googe mooy nga nekk taxta raqabatillah nga fexe yàlla gërëm la pour yàlla gërëm la il faut nga jaar ci ñëmu gërëm fa ñu jaar ñëmu gërëm fa ñu jaar avant mu leen di gërëm lu ne dégg nañ kon pareel pour yàlla fexeel bëgg yàlla balaa laa yàlla bëgg yow nit yaay bëgg yàlla te bokk na ci màndargay bëgg yàlla topp yonent bi qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah yonent bi nee na ku bëgg yàlla ku bëgg yàlla bëgg la man maay bunt bi kër nag ku ciy dugg boo rombee bunt ba foo jaar da ngaa pootu kon boo bëggee yàlla bëgg la bëggal rasulullah te ànd ak moom gis nga bokkal ci ñiy ragal yàlla ittaqillah haysuma kunta ndaw day góorgóorlu takk xolam ci ragal yàlla wallahi boo ragalee yàlla di nga toog ba digg guddi nga jaaxaan muuñ billahi ladi la ilaha gayru wallahi da ngay jaaxaan nga muuñ xoolal sa xol day féex benn féex boo xam ne doo ko mun a nettali billaahi doo ko mun a nettali xam nga luy tax mooy ni ngay xalaatee ci sa borom ak ni sa xel di dale ak li nit ñiy daj moo lay wan ni yaa ngi àjjana te deewoo ko pourtant amoo amoo moyen mais lan moo tax mooy dal bi nga dal inna allaha maa alladina ttaqaw walladina hum parce que danga bokk ci ñi ragal yàlla soo bokkee ci ñi ragal yàlla yàlla dalay may xikma xikma mooy li ñuy tuddee la sagesse ak yeewute wallahi day mel ni dañ lay téléfilmel àdduna bi dangay ngay toog di jàngat di gis loolu moo tax boroom xam-xam yi ragal yàlla ni ñuy déggee ak ni ñuy gisee day wuteeg ñu dul ñoom danga naan ñii fan lañuy ñuy tibbee fekk lu leen di may loolu mooy xikma bu leen di yàlla di may lu ndaw dinga ko xeeb ñu génne ci lu rëy mooy danañu jël benn gerte jëmbat ko ci suuf am ci cëggu gerte cëggu gerte am ko ci lan moo tax parce que wa man yu'ta al xikma faqad uutiya xayran kasira képp ku yàlla jox xikma jox na la yiw bu bare bare xikma nag boo ko amee da ngay bëri yërmande yërëm société bi nga nekkal dangay yërëm ñi nga nekkal mag sax dina jëf jëf joo xam ne da nga koy xool da da ngay rus au lieu que nga di ko yedd ñaanal ko mooy far nekk farata ki am xikma dootul xàmme noonam ak xaritam ki am xikma am yeewute ci àdduna dootul xàmme noonam ak xaritam lan moo tax jël na dogalu yàlla teg ko xam ni macha allahu kaan lépp lu jóge ci sa noonu jàppal ni mënul wona ñak motax dootuñu jël non def ko non mais dañuy soppi non def ko xarit lan moy def ko xarit dootuñu gis li jóge ci non ci non la jóge mais dañuy gis ni yàlla subhanahu wa taala moko ko ci day nek te lolu yàlla daf ñu koo wax ci suuratu furqan daf ñu koo leeral wallaay ci la khutba démb daf ñu koo leeral wa jaalna baadakum li ba'din fitna atasbirun yàlla nee na maa jël ñii dóor leen ci kaw ñii ñii ma jël dóor leen ci seen kaw yéen ñi ma ko dóor xanaa du ngeen muñ atasbiruun kon nag sabar naa yaa allah la ñuy wax yàlla muñ lañ muñ jullit day muñ muñ bu rafet fasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkuruun inna allaha maa alladina taqaw walladina hum parce que li ngay gis yàlla dalay may loo xamante ni wallaahi sa bët day jéggi bëtu nit ñi sa déggin day jéggi dégginu nit ñi lu ne mën nañ ko wax mais yërmande bi ngay amal xeet bi ak société bi billaahi day mel ni sa xol boo moomoon àjjana ñëppay dem àjjana ñeneen nag mën nañoo déggee leneen mais gis nga ki am xekma yàlla may la jàmm mooy noon dootoo ko def noonu non bi dang koy retan parce que da ngay jàpp ni ki xale la bo xamanteni xamul su xamone du ko def lolou la yonent bi tontu woon wa qaif biñu ko tege fitna yi ko tek mu talal loxo gaa ti lan la wax rabbi ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yàlla jéggalal sama xeet ndax xamuñu motax gor du fayu julit du fayu gor du fayu julit bu fay lan moy gor moy borom personnalité ki am personnalité day rusa fay fay foko fekk day upp damay nangam sa lo ci tek rek wax lu upp kon gor du fayu day dalal bopam te xamne ne bis bo xamne ne yàllaay fay gis nga bu yalla fay gor ñeeg julit ñi dana la boole te ña nga xamante ni lañ doon tag yalla ñu yalla booleeg rasulullah yalla yalla yóbbu ñu firdawsil aala يالا يالا دفن دعاة مهتدين يالا